kon mi ngi noonu ñi ngi am contentement mbégte di leen béggi bu baax a baax di leen ziyaar ki te tegal di leen jox seen seen seen seen wàccuwaay bu baax a baax a baax naka noonu di leen fàttali ni mbokk yi yéen a ngi ci radio télévision bi New York ATM Talk Show TV le meilleur de sa génération l'homme plus fort l'homme international fii ci euh, rajo bu mag bi ñi ngi leen di jaajëfal ñi ngi leen di kontaanee ñi ngi leen di bégee ñi ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax fa seenee ànd ak yéen euh, ci li nga xamante ni moom moo di programme bu mag bi euh, di géeju askan wi ci ATM Talk Show TV dinañ ci ànd ak yéen ak animation en même temps dinañ ci ànd ak ak actualité fa seenee nañ ci waxtaan ak yéen actualité nekk xam nga euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, waa waa askan wi nan lañ tuddati sax ñoom <laughs> euh, waa gaa gaa kii ñu tuddati waa askan wi <laughs> ku xam na ni yeewu askan wi demoon nañu tey euh, fële nga xamante ni moom mooy euh, fa ñu fa ñu sauvegarder euh, Ousmane Sonko ne woon dañ koy génnee ji ñoom yeewu askan wi demoon nañ fa moo tax ndeysaan jeunesse bi maa ngi leen di féliciter bu baax parce que dem nañu ba xam ni nekk ci yoon bi nekkul yoon bu baax ñoom it ñu daal di teggi seen i tànk ñoom jeunesse bi kon am na loo xamante ni tey jeunesse bi jàngale nañ ko wane nañ ko wane nañ ni ñoom kat. Euh, nekk ñu di xeex loo xamante ni xamuñu xeex bu fa la jëm ak ci lan la leen di yóbbu euh, ba tax na gis ngeen euh, ni nga xamante ni noonee la jeunesse bi taxawoo ñoom waa yeewu askan bi nag la leen fa mujj jëlee benn lakk lu machel kese la dañ ko taalee kenn ku si nekk jël na otom daf <laughs> ku nekk sa oto ngi yëg dem ñoom ay ci mi ngi noonu aloo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Ahmed Cissé maa ngi lay ziar Cissé ngaari njar meewu maa ngi leen nangul ziar te di la delloo ziar. maa ngi lay ziar mhm. maa ngi maa ngi fi maa ngi sant bu baax a baax di la dalal ci euh, rajo bu mag bi nga xamante ni moom moo di géeju askan wi. Euh, fas yéene fas yéene ànd ak yow dalal la waxtaan ak yow defe naa ni déggin bi mi ngi baax de ah. waaw man maa ngi lay dégg laa dem ok. waaw tey dañuy fas yéene euh, ànd ak Cheikh Ahmed Cissé euh, mi nekk fii nga xamante ni moom moo di New York tey nag dañu amoon yéene mu ñëw ci li nga xamante ni moom moo di plateau bi mais comme jaam ak pexeem yàlla ak dogalam euh, te Cheikh Ahmed ñi ko soxla daa bëri ah yitt yeeg yooyu da dul may yenn yi moo tax ñu daal di koy far def rek ci téléphone fas yéene cee waxtaan ak moom Cheikh Ahmed ñi ngi lay dalal ci rajo bu mag bi di géeju askan wi fas yéene Euh, laa bàyyi nga présenté wu wax askan bi euh, ki nga xamante ni tey moom la ñu invité muy Cheikh Ahmed mooy kan. li ci njëkk mooy jéggalu la. jéggalu bu wér. Mm-hmm. ndaxte waxtaan bi la lu yàggoon a bëgg la. dëgg la. Mm-hmm. depuis balaa yow ngay yëg ne. Mm-hmm. I have the possibility to come to the States of America. Euh, tey nag dama doon nelaw. loolu mooy suma ngant biisewu ma fàttewu ma mhm. trafic jàpput ma nelaw moo ma jàpp mhm. Mhm. ma la baalu àq ci loolu bu baax amul dafa wax mu ne ku fàtte ku ñu forcé non non ku juum ku ñu forcé ak kuy nelaw ngàntu loolu yàlla jéggal na ko suma xeet bu fekkee dangay nelaw julli jot julli woo baal nen la ñàkk julli waxtu wa pas ñàkk julli mais ñàkk julli on time mhm. bu fekkee da nga doon def nga juum mu ngi nga doon jàpp mhm. fàttee raxas sa loxo nga dem julli ji baal nen la bàkkaar boobu la ndax tayuloo ko bu fekkee ne nag den la forcé mhm. tayuloo ko baal nen la bàkkaar boobu kon ngant nelaw laa am maa ngi lay baalu encore une fois. amul benn problème yow yow moom euh, euh, wax dëgg fa yàlla su ñuy lay seetaan di déglu si say kàddu dañu ñuy jàngee ni kàddu dëgg ngay wax euh, gis naa ni dëgg jooju mi ngi ci yow tamit loolu dañ la siy remercier bu baax di la wax ni yow suñu waay nga bu dul dara waaye itam fonk nañ la ci kàddu googu itam ngant nag jaam pexem yàlla ak dogalam ndax nit day am yéene def waaye suñu borom bu bëggut du antu loolu moom da d'accord nañ ceeg yow ànd ceeg yow bu baax a baax euh, du ñu def lu dul daal lay fas yéenee waxtaan ak yow euh, ñu gis ni Cheikh Ahmed euh, nitu nitu daara la mais ci biir nitu daara ji da ngay nekk di faral di wax ci lu jëm ci wàllum actualité ak lu jëm ci wàllum politique lan moo tax facette boobu noonu Cheikh Ahmed jël ko fas yéene ko doxee en tant que nit koo xamante ni nitu daara la. Euh, man xawma exactly mhm. lan la Sénégal bugg a tuggee daara to be honest xawma mhm. hmm? euh, mais li ma xam mooy mhm. la me send a request on TikTok so people can join send to me okay I have the all Euh, li ma xam ci nitu daara. Mhm, bu la neexee mën nga ko mën nga ko def vidéo itam toog di waxtaan ñu ñu ngi lay seetaan ok. li ma xam ci nitu daara mooy. Mhm. jullit boo xam ne. mën mhm, nga jël request vidéo bi mu lay yónnee après euh, ñu continuer. non non fi ma nekk moo baax dama sumeeku rek. ah, ah dafa baax doon nelaw far nga kii waaw. ay ci continuer kon. di leen fàttali ni mbokk yi euh, ñu ngi invité Cheikh Ahmed Cissé euh, ñi ngi lay ñi ngi lay bàyyi kon nga continuer <laughs> dama xamul Sénégal lan la ñuy tuddee nitu daara mais pour man jullit bu nekk rek nitu daara la dëgg la because daara mooy fondation bi njëkk mm-hmm. pour yow sa madame la moo may tàngal di ma sëfal nii parce que. Mm-hmm. na ma jël ko ma ne ko dama nekk ci programme demal nga xool mu ne moom demut naa ko jël force. <laughs> léegi moo tax wax ji di dagg daal xam nga man damaa faible ba pare su ma jabar daf ma toll foo xam ne. ndeysaan. dafa sori ci man léegi moo tax maa ngi rappi rappi léegi su insister nii. il ah. faut ma dagg dem wax ak moom waaye neex naa baab moom. Mm-hmm. Mhm. boo ko ne dama la bëgg yaa ma gënal jigéen ñi rek coow li day dal di jeex. kon bu ngeen nga daal di ko koy bind rek su ko defee coow li jeex. ñu continuer loolu laa ko bind. waaw na ko nopp naa la man sa doom la maa ngi raam baal ma xool li bi ñëwaat. bu duggee rek daf may baal. ndeysaan kon donc tey. Mhm. nitu daara xaw ma lan leen ko tuddee. mais jullit bu nekk nitu daara la ndax yonent yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam moo njëkk a nekk nitu daara. bi mhm. mission bi di ñëw yàlla daf ko ne iqra. nga jàngi. Mm-hmm. ñun ñii ku ci judd bala nga mën waxit yaa ngi dégg sa bopp ci daara ja ci jàngi mm-hmm. donc ñun ñëpp nitu daara leen nekk gi ñu nekk nitu daara moo ñu permetre tey euh, ñu mën a xam ne den war a jàpp nekk ñu nekk nitu daara moo tax ñu xam ne fen dafa xaraam Mm-hmm. nekk ñu nekk ni dara moo tax ñu xam ne Serigne Touba amul morom ñu jéem ko jàpp Serigne ngir jég jege suñ borom. Mm-hmm. nekk ñu nekk ni dara moo tax ñu xam ne ah ñun daal soxla ñu mën Serigne alxuraan ak sunna la ñu soxla. nekk ñu nekk ni dara moo ñu permettre ñu xam Baye Niass mooy lan mooy kan mooy fan ak ci lan la ñu woo ci lan la ñu Mhm. donc pour man ñun ñëpp nitu daara la ñu ah. nitu daara la dëgg la. Mm-hmm. Euh, dëgg la euh, léegi ñu daal di ñëw tuuti rek ci actualité jëkkee ko ci actualité bi am tey euh, gis nañu ni yeewi askan wi dañoo demoon jëloon pour génnee ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko waaye bu ñu yeggee booloo ma takk takk taxu ko takk noonu. ba defe naa ni. Mm-hmm. benn lakk lu ma lañ leen dóor ñu ñu ñu ñu ñu tas. Euh, yow loolu ban jàngat nga ci am euh, ci ci ci politiciens yi euh, ni ñuy yë ak di génnee askan wi ba nga xamante ni léeg les jeunes yi ñu si bëri ñoom ñoo si ñàkk seeni i bakkan yow ban jàngat nga ci am. man nag politicians politicians I reserve my my honest opinion about them and I also uh, not a fan of them. man li ma bëgg a wax mooy xaw ma ne ñu lay déglu dégg anglais wala dama ne politicien su ma gis-gis bi dëggu ci man. Mm-hmm. dama koy denc téye ko sama bopp ba pare man nekkuma seen soppe. Mm-hmm. li tax su ma gis-gis bu dëggu ma koy téye ci man mooy bëgg jàmm. xam nga soo demee ba politique nekk koo xam ne tey ki kii kii politicien bi ci boppam. Mm-hmm. ku àndut ak moom naa fekk la ku ko bëgg nit ku baax la ku ko bañ den la jënd. su demee ba politicien war a jaral doomu aadama bi nga xam nga saaga ndeyam ak baayam. Mhm. su demee ba politicien war a jaral doomu aadama ngeen di dóorante. su demee ba politique war a jaral loolu nit borom xel da cee màndu. Mhm. loolu moo tax ma réservé man suma oppi suma opinion parce que man loolu du suma jëmuwaay. beneen ba. Mhm. lu tax man am not a fan of them lu tax neexuñ ma. mooy gëw ma ni ñuy doxalee. lépp lu bon su ma yoon nekku ci waaye lu ma arrangé wul kaay leen xeexal ma ko. Mhm. lépp lu baax ak kuy wax dëgg waxul dëgg feeg man waxuma leen ko. donc su boobaa damay préféré mandu ci boobu politique waaye tam lan lu ma ci mandu mandu te am kàddu. Mhm. dinaa wax ne bépp doomu aadama bu mu mën a doon. ku lay woo ci dee rek ne la gën a ñeme dee. yonent bi mu wootee xare ngir lislaam moo daan taxaw ci digg xare ba. fitam du dem du tiit du ras muy gën a taaru di defar kaalaam gi mhm. fett yeeg jas yi di ko romb te du tiit du daw du yàkkamti ndax amul lu muy xemeem du daw ndax amul lu muy ragal mhm. kooku bi mu woowee saxaaba yi delluwul ginnaaw mhm. dëgg mas naa am lay mas naa feebar di génn ci xare jabaram téye ko na ko doo dem dëgg la ko mu ne waxuma lislaam waaye su ma ngor mayit ma ma woo jullit ñi ci xare ba pare te du ma dem kookoy rasulillahi sallallahu alayhi wa maa ngi digal ñiy topp politiciens yi ne ne. Mhm. buñ demee bay topp politiciens am nañ ci droit seen choix la naa leen ko. waaye waay waay ngeen la rek rek neen am njit bu mel ni yonent bi waxuma ci njub gaag màndu gaag ragal yàlla gi ndax ñi ñu topp woow toppuñ leen ngir ragal yàlla. Bill Clinton bokk na ci président Amérique yi gën benn nattu la am mooy tubéy ji mënu koo tëj. Jacob Zuma bi defar Afrique du am na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci doomi ëmbal. Mhm. kon waxuñ ma ne neen jut ni yonent bi waaye neen am ci liñ leen di woo am détermination ci liñ leen di woo am engagement ci liñ leen di woo ni yonent bi ni mu amee woon engagement ci mission bi. laataa ñuy laataa ñuy continuer ci actualité yi. Euh, Cheikh Ahmed bëggoon naa xam ku la ku la yar. Ah, man suma ndey ak suma baay ji ma jur ñoo ma yar keneen yaruma keneen yaruma parce que boo déglu ma laaj la question boobu dama seetlu si sa si say kàddu euh, ni ngay waxee euh, am na ñu ko rafetluwul am na ñu ko rafetlu am na ñoo xamante ni dañ naan moom de ni muy waxee nangam wala ni muy waxee lii waaye teewul ni dañuy wax dëgg ji te man da man li ma li ma ci gën a am importance mooy euh, dëgg ji nga xamante ni yaa ngi koy dégager ci ci ci ci ci ci ci li nga xamante ni yaa ngi koy faral di wax moo tax ma laaj la loolu lu waral dëgg dëgg gi. Ah, xam nga um, this doomu aadama yi especially in Sénégal. Mm-hmm. ñoom am nañu melekaan boo xam ne lépp luñ xamul rek dañ koy bonal ba bis bañ koy xamee. lépp lu leen neexut dañ koy bonal ba bis ba mu leen di neex. Mm-hmm. dëgg la. lépp luy menacer seen confortabilité ak seen intérêt dañ koy bonal. ba bis bi danger boobu di dëñ dëgg la euh, ñi fi nekkoon nekk sëriñ ak wote ci dina dafa yoon buñ jëloon man ma ñëw tëb jaaruma yoon boobu mhm. ndax loolu du suma style mhm. gëwuma loolu mhm. léegi ñu commencé di ma attaqué dafa bon dafa nangam dafa nangam te biñ demee ba xam ne kii lii stylam la ñi ñi doon wax dafa bon denn pour pourtant dafa baax de waaju set xol la pourtant dëgg lay wax ah. <laughs> ñoom ñooy wutaat même excuse pour defendre seen bopp. dëgg la. mais amuñu honnêteté ah man de ma daan wax ne dafa bon waaye ndeke bonut man maa doon amuñu honnêteté boobu. dëgg la. Euh, ñi nga xam ne comprendre luñ la. Mm-hmm. nekk si seen zone confortable den lay bona mm-hmm. buñ la comprendre den daan ndeysaan man ni ma ko jëkkoon xaw ma ko woon mais léegi moom rek laay Mm-hmm. honnêteté intellectuelle nekkul ci ñoom ne ah man de bi ma doon wax ne moo bon ndeke woo yaay man maa xamut mais bi ma demee ba xam xam naa ne maa juumoon baal maak loolu nekkul ci ñoom dëgg la waaye man naka jekk xam naa dëgg mm-hmm. Mm-hmm. man xamoon naa dëgg dëgg gi ma xamoon te ne ca ci loolu rekk laa ne léegi ah, euh, xam naa auditeurs yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi bëgg participer mais laataa ñuy ñëw euh, dinañ leen dinañ leen jox ngeen participer Cheikh Ahmed a nga fi mu ngi fekk yéen euh, kenn ku si nekk di nga woote wax li nga xamante ni moom nga bëgg moom nga bëgg a laaj mais Cheikh Ahmed dañ ma dama gis ci actualité yi nga xamante ni mi ngi am lu ci mel na Wally Seck bi dama la koy joxandoo ñaari su ko defee ñu tënk ko Wally Seck bi gis nañu problème bi nga xamante ni moom lay faral di am chaque année mu dellu siwaat xaw a nduroo xeetoog loolu am na sax ñu ne loolu amut Euh, beneen bi nga xamante itam euh, mooy bi am euh, TFM te te te dal ci ndodd Kouthia ak ak wër ak li wër waa TFM ñu si mel ne Pape Cheikh Diallo Amina Potek ñooñu noonu yow actualité yooyu nag naka nga ko gisee ba ñàggal nga si am. concernant Wally mm-hmm. man awma problème pour Sénégal nga tekk fa ñu ne la góor jigéen loolu suma problème parce que ñoom. dem neen ba wan ñu yàlla ci anam boo xam ne yàlla ku soxor la du dimbale nit pour mu dimbale la faaw nga nekk góor jigéen faaw nga nekk faramason kan moo tekki Sénégal kuñ tuumaalul ñaar yi dëgg la donc aw na problème kon dafay wane rek ne Wally il a réussi successif la ci li muy def mooy musique bi man rek laa ko gisee ah pour man dafa mhm. tekki rek beneen ba mhm. euh, ngeen xool ñaari mbir mhm. jigéen juy sëy ak góor nga mën a am audacité enregistré ko lan moo doon say objectif ak say ambition envers kooku nga tuddee jëkkër mhm. question bi fekk trouvé wuñ ko rek nekkuñ ci yoon bu baax bi dëgg la ñaareel ba mhm. ñun ñooy kan ci doomu aadama yi ak ñi dëkk bi mu méttee ñi diina jëfee nga xam ne suñu objectif mooy fexe ba am lu ñu lekk suñu objectif mooy fexe ba jubóog suñ borom ñu mën a concentré wu ci kaw jëkkër ak jabar joo xam ne kenn ci ñun bëggul sa baay ko kenn yéenewul suñu baay jabar ju rey euh, kenn ci ñun yéenewul sa baay jabar ju koy enregistré kenn yéenewu ko sa bopp dëgg la ndax kat wax jeefi ne mais képp kenn ci ñun am na koo xam ne yaa ngi wax ak moom loo bëggul mu siiwal ko ëllëg dëgg la xoolal yàlla ak yonent bi bi nga ko ooyee subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa hmm. bi yonentu demee ci yàlla yàlla da ko jox ñetti xam-xam mu ne ko xam bii ma jox la pour ñëpp la hmm. fépp la ba faw mooy alquranul karim mu ne ko ah xam-xam bii nag pour ñenn rek la mooy xaas xam nga ne sëñ Bàmba li mu xam ci yonentu yow xamoo ko de dëgg la hmm. waaw ndax dangaa doonul xaas li xam ci yonentu man xaw ma ko ndax dama doonul xaas mu ne ko bii nag man la képp ak yow keneen bokk ci waaye yonentu bi waxuñu loolu dëgg la bu ko waxoon yàlla rus. kon su ma ne ku ne am na koy waxal loo bëggul mu xam sama va pas kat que dañuy fen ñun wala dañuy jëw non waaye suñu secret la léegi nag euh, nan la ñuy blâmer ca ci wax koo xam ne moom la ko seqal. that's what we call private conversation. Mm-hmm. waxu ba ci réewum l'islam mais ci réew mu réglé ñii di Amérique doo ko fi teg. wallaay loolu sax te ñii gëmuñ yàlla de. dëgg la. oote wuñ lislaam. Mhm. ñoom seen gis-gisu bopp la ñu woote waaye seen gis-gis may leen nga wóolu doomu aadama ngeen di waxtaan mu mu mu mu enregistré la seen seen gis-gis nanguwut loolu. Mhm. kon nag yow moom ku caa ko wax dëgg laa du dëgg yow ci mhm. kaso gi nga jom donc problème bi ma am man. mooy nan lañu suma problème mooy nan. lañu mën a nangoo. jabar juy eh, eh, enregistré jëkkër ñun ñu normalal loolu suma problème mooy nan lañu mën a xoolee wàlli jiñ ko góor jigéen mm-hmm. mandute l'islam maywul ko mm-hmm. honestly civilization of the modern generation we are mayewut loolu jërëjëf moo tax man ñaar yooyu duma ci dugg wàlli góor jigéen ak du jigéen loolu du man maa war a wax loolu man jàpp naa ne góor la ndax mm-hmm. ah wax na ne moom géwél la wax na ne doom ju góor la wax na ne soldaaru baayam la ba pare takk na soxna su baax normal according to nit ñi mu ngi am doomam te mu suma ko gis góor gu taxaw ne man tëddee naa wala wala wala tëddee man ba léegi gisuma loolu dëgg la jërëjëf kon man loolu ñoruma duma ca perte benn minute fan. benn minute na ko. ay ci kon mi ngi noonu euh, kooku mooy Cheikh Ahmed Cissé euh, ñu invité ko tey fas yéene ànd ak moom ci li nga xamante ni moom moo di géeju askan bi di rajo télévision bu mag bi nga xamante ni mu ngi fii ci New York euh, defe naa ni waa lii ku ko xam-xam ko ci Baye Fall laataa ñuy dellu si laataa ñuy jox auditeurs yi du ñu def lu dul daal di dem seeti ji publicité après dellu si waat ak askan wi daal di jox auditeurs yi ñu laaj seen i question fas yéene cee ànd ak yéen di jégalu bu baax a baax a baax ci retardement bi nga xamante ni ngi koy amal euh, ak euh, auditeurs yi dafa nekk nii euh, ki may waxtaanal moom moo nekk nit koo xamante ni foo ma ko teg ci sama jëmm ji dafa sori te itam damay bëgg di waxtaan ak moom ndax am na yenn xam-xam yu bëri yoom te ni dama koy jàngee ci moom ci ak i ay ci mi ngi noonu ci borom àndalaa buré ngi noonu mi ngi jaajëfal bu baax ah bu fekkente ni ah, Cheikh Ahmed mën nga woote waat dafa mel na appel bi dafa dagg boo mënee duggaat ay ci mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax ay ca naka noonu dinañ def lu dul daal di dem seeti ji Andala Boury Andala Boury ngi fii ci États-Unis d'Amérique daal dinay ñëw ànd ak Cheikh Ahmed Cissé euh, moom moo ngi leen indil li nga xamante ni moom moo di Andala Boury euh, moom euh, Cheikh Ahmed Cissé Andala Boury nag bëri na loo xamante ni da koy faj ci yaram euh, lu ci mel na euh, hémorroïde euh, lu ci mel na estomac lu ci mel na bopp buy metti ak yeneeni feebar lu ci mel na ay ndoxum cité gi kurabët xeetu feebar yoo xamante ni feebar la yuy faral di nekk ci deret yooyu yëpp boo naanee li nga xamante ni moom moo di àndalaa buri dana ko raxas ba mu set li gën a neex ci àndalaa buri mbokk yi moom moo di bu fekkante ni kàttan gi daan néew boo ko dee naan day yokk kàttan dina la gën a mën a jox cawarte ci boo nekkee sa soxna du la yàqal dara nag àndalaa buri nekk na garab goo xamante ni bëri nañu waaye li ma gën a neex ci garab yi moom moo di am na bu ñuy wax riigu riigu nag euh, moom euh, ci garab la itam boo xamante ni Euh, bu fekkente ni da nga am sàkkar soo xamante ni dafa xaw a cëkk wala mu xaw a ndaw wala sidit gi xaw a am problème wala mu xaw a dëng euh, booba boo ko dee diw euh, dina ko daal di jubbanti boole ci sidit bi nekk ci biir dina fexe ba mu génn wéral li nga xamante ni moom moo di sàkkar googu ba pare yokk ko boole ceeg teew ak naturel liis gu rafet tarkalla macha allah a àndalaa buri riigu googu nag Cheikh Ahmed Cissé moom moo koy joxe nekk fii ci États-Unis d'Amérique Euh, moom it am na euh, doy waar doy waar moom it danga koy daal di def ci jus d'orange mooy jus d'orange bi ngeen di gis nii oh, moom laa ci xëpp euh, léeg-léeg ma yëngal ko gisoo leen su may animé ba mu yàgg su ma kon naanee damay sawar ca war tëgg nga xamante ni moom lay àndal moom ngay àndal ci boo nekk ak sa soxna ah, moom doy waar gii boo ñëwee ak sa soxna bu yàggee dina bu la xoolee dina la ah, ah, ah waaye alaaji tey li mu indi doy waar na de <laughs> wala mu ne la bee tey lu mu demee noonu loo naan ah moom àndalaa buri eh, bu fekkante ni da nga bëgg jokkook eh, ki nga xamante ni. Eh, moo koy jaay fii ci États-Unis d'Amérique moo xam àndala buri nga bëgg moo xam riigu nga bëgg moo xam doy waar nga bëgg da leen di daal di woo ci numéro bii muy 646 945 03 68 646 945 03 68 bu fekkente ni itam bëgg nga euh, délivrer euh, GP bu gaaw suba ci lundi bi euh, boo woowee numéro boobu itam dañ leen la ko GPL ñu dem daal di seeti ji Baobab restaurant le Baobab restaurant nekkee foofu ci diwaanu 116 between 7 ak Lenox Avenue Baobab restaurant ci ceebu jën ak i maafe ki dama daaw ki suluxu ak suppu kànja ñoom ñoo ci aay bépp xeetu togg moo xam muy ñaari cin wala lu mënti doon boo demee ca Baobab fekk ko fa dibi dibi Sénégal ah dibi ginaar euh, poulet euh, bopp bopp xar bu ñu mus wi euh, en même temps am na ñu mus wi am na ñu fataay am na ñu neem ñoom waa Baobab boo fa demee itam da nga fay daal di am boo bëggee jokkoo ak ñoom ci wàllum delivery da leen di daal di woo ci 212 864 47 00 mbokk yeeg askan bi ñu daal di dem seeti ji njàmbu shopping njàmbu shopping di ab GP boo xamante ni moom itam mi ngi fii ci États-Unis d'Amérique di def di jublu ci lépp lu jëm ci wàllum GP. moom njàmbur shopping boo bëggee ay bagage wala sax tabaski bi nga xamante ni euh, sa ñëw tabaski nga sa Sénégal nga war mu ñëw ah ci la gën a gaawee euh, boo leen daal dee woo léegi léegi di nga bokk ci ñi nga xamante ni seen ñëw tabaski dina ñëw ci semaine bii nii incha allahu rabbi Euh, daal leen di woo ci 646 427 11 23 wala nga daal leen di woo ci 929 316 90 mbokk yeeg askan wi ñu desagum ba tey euh, ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy euh, ñoom ñooy waa waa waa Fish and Market Fish and Market nekkee foofee ca diwaanu ko Bronx New York 1678 Boston Road ñoom waa euh, fiche and maquette boobu noonu boo boo bëggee lu jëm ci wàllum xar surtout xarum tabaski yaa ngi ñëw da nga leen di daal di woo si ni mu gën a gaawee nga am sa xarum tabaski te xarum tabaski yu mag la ñuy jaay ñoom waa fiche and maquette am nañu ay jën am nañu ay ginaar am nañu bépp xeetu lujum boo bëgg te muy jëm ci wàllu marché boobu demee fekk ko fa fiche en maquette la ci gën a neex moom moo di euh, boo leen soxlaa ci wàllum delivery mën ngi leen daal di woo ci numéro bii ma leen digtal muy 718 294 78 82 Baobab restaurant bi nekk fii ci 125 Fulton Street euh, Brooklyn New York itam ñoom ci wàllum ceebu jën ki maa fekki dama daa sulu xooki suppa kànja bépp xeetu togg bu sénégalais di togg ñoom tamit ñoo ca mën

ay ci kon mi ngi noonu kooku moo nekkoon Cheikh Ahmed Cissé ñu ngi koy jaajëfal bu baax mbokk yi di leen fàttali nii moom lañu ñu dalal tey ah, su ko defee ah, ñu daal di jël ñu jël benn auditeur yee bi Birahim yaay wax ay waay Birahim mii <laughs> waaw baax waaw buñ ko tëjee kaso ndax xalaatam ak dëggu ci lim nekk dëgg la ndax kapot yi bu kapot yi buñ naxantewul ñun ñuy jum julli ci jumaa yi ñoo koy solul mm-hmm. buñ naxante jakarta bii ak wiski bii ñoo koy naan dëgg la kon bu ko waxee lu day fa dëgg la mm-hmm. wutuma lu xaw ma ko xamuma mm-hmm. te dañuy wax ne ko de ñaan ki yàlla te dégg ci loolu lim nekk lam nekke fii bu nekkoon ne dañuy bind ku nekk ci mbubam li muy def jëfam kon amet bu waxee kan du ko yóbbu kaso. dëgg la. est-ce que xam ne est tabaski pour xar dafa arab amet xam na ko. Mhm. ci taw dëgg la bu dul dëgg rek mu dugg. non dëgg la mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg si Ahmed a ngi lay dégg. kon bu ko waxee ne nañ ko séddale gis na ne ñun ay jullit lañ. mais li ñu wane ci kaw ak li ñuy def ci suuf bokkewul. dëgg la ndax kenn warul ate moromam yàlla mooy wax de. Mm-hmm. xam nga dañoo foog ne ku dégg ay liif nangam nangam jaxase. Mm-hmm. léegi ci tënk rek Birahim la ban question ban nga bëgg laaj Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed. waaw. kon da ñoo bëgg nii rek nga dem. non non bëggoon nga laaj question rek xam nga dafa am ñu nekk ci kaw te bëgg laaj. non ci question laa nekk de. léegi nga bëgg ma nga nga wax li ma bëgg a laaj. waaw waaw ñëwal waaw. Mhm. Cheikh. bu da ngay fexe ba am nopp déglu. Mhm. xam li ngay wax ak ndax bu nekkee yahud yi cinq pour cent la mais conteneur bu protect day wàcc Sénégal mu jar. Mhm. comme am na droit ne comme ñun jullit yi maandu woon bañ koy jafandikoo kon nañ ko séddale foofu la doon waxee. ñu dugal kaso te ñoom ñooy wàcce conteneur yi dédouané dugal ci dëkk bi suba sax mën naa am printemps amit di nga mën a jël avocat xanaa moom question la di nga mën a jël avocat. oui c'est vrai. Ah, bien sûr bien sûr. ok ok léegi Birahim léegi léegi léegi Birahim Birahim ñu ngi lay jaajëfal vraiment kontaan naa bu baax a baax euh, kontaan nañu bu baax léegi léegi léegi question bi defe naa waa def defe aha waaw léegi laaj ko rek mu gaaw parce que temps temps baa ngi dem ak ok ok loolu leer na. loolu leer na. loolu leer na baal mu ñëw tontu la si nag léegi ah. ay ci mi ngi noonu si Ahmed euh, mu ne ndax euh, lii nga xamante ni wax nga ko euh, mu jëm ci wàllum kàppoot yeeg yooyu noonu ñu jël la ci tëj la ci kaso ndax loolu jar naa tëj ci kaso. ah jaru ko parce que man wax ji lum ñaaw ñaaw ñaaw ci gis ak déggin. Mhm. man dama noonu nañ ma yóbbu ci lislaam xool lu alquran wax ci man ñu jëfee loolu. Mhm. ma bu fekkee ne alquran dem fekk mu rey ma neen ma rey. Eh, fekkee mhm. man su wax sax gën na xóot loolu xam nga tey. waaw. yàlla bi mu ñuy teral daf ne wa alama adama asmaa kullaha xam-xam boobu la yàlla jox doomu aadama di dem ba mën a defar tey lii mu defar. Mhm. yow fa nga ne ak fi ma ne ak fi biram nekk du benn. dëgg waaye technologie yegg da ci ba soone nga ne ma ne la ma ne. mënoon naa sax tey nag ñuy gisante. Mhm. léegi nag xoolal jëkkër ji mu ngi sëy ak jabar ji. te ñun dañoo bëgg affaire de ñaar ñett ba ñeenti jabar wala am jabar di doxal loolu suñu yëf la. bu mhm. ñu nëbbante. la. nga dem ci biti laalante fa am fa feebar. islaam daf ne bul tëddati ak sa jabar na ko may espace ba mu faju ba wér mhm. waaye nag science may na la kàppoot nga mën koo sol laal sa jabar te doo ko wàll du la wàll mhm. waa ndax duñ ko daganal suñuy sëy ñu koy sol waa dëgg la mhm. ci foofu nga man de lii laa wax ah. ñun njaalookat yëpp parce ku dul njaalo sa xel du dem ci njaalo ne kii daf ne neen yokk njaalo parce que pour njaalo mais non c'est pas vrai Mm-hmm. protect it was made for safe sex nga laalante ci kaw kaaraange mais c'est dafa dessiné pour njaalo pour njaalo dëgg la jërëjëf beneen bi yàlla may na la nga sori njur mm-hmm. utiliser capote sori njur ay alquran la waaye ma wax rek ñu mer dëkk bi yëpp mer ñu jàpp ma teg ma ci kaso gi ba nit ñi dal ñu génne ma waaye ñetti weer yi ma def ci kaso gi waaw lan la ma yàqal su ma wér gu yaram lan la yàq ci suma der lan la yàq ci suma gis-gis lan la yàq la dee don't care all de care about nit ñi mel ne nga kay tëdd kaso jërëjëf Cheikh Ahmed léegi ñu daal di dem euh, jëli jiwaat beneen auditeur defe naa ni tontu boobu euh, leer na euh, xaaral ma ñëw jël ki nga xamante ni moom moo di Suzy wala Teresa yi képp ku ci pare après su ko defee ngeen laaj question Teresa Sadji wala Suzy allo. allo. allo oui. amoo question booy laajte. non amoo léegi Babacar maa ngi lay maa ngi lay ziar Babacar di la euh, ah. ok Babacar maa ngi lay ziar dina jox sa wàccuwaay. waaw ñu ngi lay euh, ziar waaw ba. Euh, di moom la ñu dalal nuyoo ñu ngi koy njëkkee ci moom. Mm-hmm. jërëjëf Ndiaye. ñi ñuy euh, déglu ñëpp ak ñi ne ci suuf vraiment ñu ngi ziar ñëpp di euh, di ndokkeel ñëpp macha allah di nuyu soppe yëpp. Mm-hmm. kooku Babacar la. Euh, mm-hmm. dañuy wax ni rek macha allah kàddu yi dégg nañ ko bu baax am nañ ci aussi ay jàngat yu leer macha allah. aussi am wax na sànq benn wax bu solo ci côté Wally Seck maanaam man ma ci dégg rek lu ñu ci am solo ci doomu aadama euh, xanaa peut-être buñ ciy wax rek mooy luñ luñ koy jox conseil rek nekkoon na il faut mu tay encadrement yu solide yoo xamante ni peut-être dinañ ko mën a situer ci côté accoutrement et cetera et cetera euh, beneen bi mooy euh, Cheikh Ahmed Cissé wax na fi aussi waxu li taxoon ñu denc ko man su ma amee lu may wax du ma poser question mais dama koy yokk rek comme mbokku julli la rek te ma koy fàttali rek zikra na fàtte zikra la ñu wax ci euh, alquran maanaam fàttali dañuy fàttalinte rek di laayante biir mm-hmm. euh, maa koy euh, wax ni rek comme ñun dañ koy suivre ci lu bari rek na gën a góorgóorlu rek gën a nekk jàmbaar gën a defaru rek parce que àdduna moom moo ko ay rëq-rëq ñoo ànd donc daal bu ñu ciy waxat daal mooy wàllum tabaski daal la ñu bëggoon tuuti rek mu wax ñu ci lu ci suñu borom wax pour ñu laaya ko biir doomu aadama yi parce que guddi gi toll nii tabaski daanaka léegi ñu bëri am na ñoo xamante ni dañ ko def puukare am na ñoo xamante ni aussi dañ ciy dugg ak ay bor yooyu noonu te wax dëgg fa yàlla loolu jubluwuñ ko ci tabaski donc am na rek luñ ci xam mais comme moom moom mooy invité bi nañ ko bàyyi macha allah te wax dëgg fa yàlla jàpp nañ suñu sëriñ la nañ ko bàyyi macha allah moom mu yëkkati ay kàddu ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp macha allah. ayca mi ngi noonu. Euh, Babacar moo laaj question boobu euh, Cheikh Ahmed lan ngay indi ci loolu Euh. léegi léegi léegi léegi léegi si Ahmed ñu jëlandoo ñaari question après su ko defee nga mën a tontandoo ñaari yëpp ayca Treiza ñëwal. Uh-huh. Euh, ñi fi ok defe naa leer na Cheikh Ahmed ah dégg nga question boobu. moom dégguma ko parce que ay casque takk yow laay gën a dégg ko ñoom. waaw mu ne. Euh, produit mhm. produit bi nga xamante ni da ko jàng parce que xam naa moom fu mu nekk moom moo xaw moo xaw a de euh, moo xaw a bëri bruit mais bu fekkee mën na déplacé wu euh, posé waat question bi euh, su ko defee mooy gën a leer léegi ñu bàyyi la le temps léegi léegi léegi waaw ah waaw ñu ngi lay dégg waaw.

lan moo tax nga nga xam-xam bi naka nga koy defee ba xam da nga koo essayé ci nit mu dox wala déet defe naa dégg nga question bi. Euh, waaw dégg naa ko. Mhm. xam nga dafa am pharmacien. Mhm. moom dafa am luñ koy jàngale mhm. am docteur nuñ koy jàngale am ku nekk ci laboratoire nuñ koy jàngale pharmacien bi nag moom. Mhm. dañ koy indil garab. bindal ko ci li garab bi di def leer ak li muy bañ. Mhm. bindal ko kan moo ko war a jël bu nit ki ñëwee mu ne ko jëfee nii jëfee ko nii jëfee ko nii jëfee ko nii. Mhm. man pharmacien la defaruma garab tey defaruma garab suba. waaye ña ko defar dëkk ba ñuy nekk dañuy am kayit bu jógee ci seen ministre de la santé. buy dëggal ne lii nit mën na koo jaay mën na koo lekk wala mën na koo naan. Ah, mhm. ñun suñ ko jëlee si base yooyu la ñuy tënku duñ ca yokk dara duñ sa wàññi dara. Mhm. tey ku fi amoon licence su pharmacien da ngeen ubbi pharmacie. mais garab yi la laboratoire di jox doo si yokk leneen ah ni nga koy bàyyee mais ku ñëw nag loolu su la laboratoire bi suba da ko naan benn suba. su la nangoon nga ne ko benn ngoon nii la kaa bi demee ak man du man maa defar garab yi mm-hmm. mais ña ko defar seen xam-xam màcc na ci loolu te réew ma ñu nekk ministre de la santé nangu na ne doomu aadama mën na koo jëf jëfee te du ko lor kon defe naa ni donc tontu boobu leer na mm-hmm. ñaareel ba man ñii di ko jaay mm-hmm. jëfandikoo naa ko te ñi ma koy joxit ñu koy jëfandikoo dañuy échanger lan nga ci xam mais lépp lu positif lay doon. macha allah te depuis deux mille dix neuf laa ko commencé jaay ci laa ko commencé utiliser. bu may tukki lépp mën na ñàkk dem ba mu des moom. te depuis booba ak léegi am koy jaay si benn jafe-jafe. non non mhm. xanaa kay yéex naa koo jot jafe-jafe boobu moom dinaa koy dégg. yéex naa koo jot yéex naa koo jot. <laughs> waaw ak tamit suma jabar nee na àttalu ko. Ah. <laughs> ndax dafa diis dafa bëri doole ñaari jafe-jafe yi xam naa ko ci. moom yaa ngi ko ciy am. ay ca mi ngi noonu su ko defee euh, ñi daal di demaat ci beneen auditeur balaa muy. balaa non non non non ah, Babacar dafa laaj. waaw waaw Babacar waaw wax nga dëgg donc tey dëgg ñëw ci Babacar. li may wax mooy euh, sunnaay tabaski dafa am. Mm-hmm. ñun nu ñu bëggee tabaski am nu ñu tabaski neexee am waxuma ci nim ñu neexee. waxuma ci niñ ko bëggee lu suñu affaire la ku ne. bu fekkee da nga gis na da nga war a dem pose ongle demal pose ba yow la de boo gisee ne da nga war a def cheveux naturel bu ne muut demal nga def. Mm-hmm. boo gisee ne danga war a tatouer sa yaram demal def. loo gis rek sa affaire la mais yonentu bi ñu yàlla yónni mu jox ñu diine li mu wax mu ne. da ngay sangu sangaayul farata comme ku doon laalante sangu bi muy sangu wala ko am doom ba pare. waaw. bu dee da ngay lekk ci suba gi lekkal tàndarma képp boo ko deful oral. ba ñu rey xar bi nga dugg nga nga nga lekk res bi loolu moom xam naa ñun ñëpp xam nañ ko si suñ cosaan su ne suma papa ñëw na jumaa ja ñu naan la mm-hmm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne bi gën ci sa yére yi wala bi gën a bees rek naan nanga ko nanga ko sol waaw mm-hmm. ah, ñun ñun néew ju doole te amul ñeen redouble rek sol yu yuñ passé mu ne na laal parfum soo ko amul nga laal déodorant boo ko amul taalal santang bi nekk ci ba saxaar si dugg la boo paree dem sa yoon mm-hmm. dox jëm ci jumaa ja wala julleekaay ba te sooy dellu si bul jaaraat leen boo ngir yool ba bari mm-hmm. euh, na nga demit jullee fu am kaaraange na jokk sa mbokk yi dafay tax sa julli gën a barki Mm-hmm. maanaam comme lu ñu wax baal leen ñaax baal na leen yàlla leen fekkee de eh, eh, sunna la <laughs> maanaam da ngay jokk sa mbokk uh-huh. da leen échanger gif mooy ndéwénal jëlal sa pooji xar may sa nangam jëlal sa benn mbubb jëlal dara rek doon échanger quoi mm-hmm. lii rek mooy sunna mooy mooy julli ci sunna lu dul lii rek bokk ci mooy julli si sunna ay waaw kenn ci ñu ne ku am lu la neex na nga bëgg ko cee boole ah moom yoonam nekkul ci loolu waaye lii la yonentu jàngale loolu la yonentu jàngale loolu loolu am na solo euh, defe naa ni li yonent bi jàngale rek mooy jàngale gi nga xamante ni moo am solo euh, ci doomi aadama bi nga xamante ni euh, dafa choisir doon jullit ayca kon mi ngi noonu du ko su ko defee ñu dem seeti ji Zé Zé Apple bu fekkente ni Zé Zé yaa ngi ñuy dégg ñu bàyyi la nga laaj sa question wa ila Abdou njaay nga may Abdou njaay mu ñëw laaj question comme depuis boobaak léegi ndeysaan mi ngi yéeg di dem ak i ñëw Abdou Ndiaye maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax foo ñu woowee Abdou Ndiaye tijji sa micro sa micro ba dafa tëju de kenn déggu la. allo oui Anas maa maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay yow foo ñuy woowee ni maa ngi leen di woowee Thiès. ah yaa ngi ba Thiès di ñu woo lan nga bëggoon laaj euh, Cheikh euh, Cheikh bi. waaw effectivement bon tout d'abord maa ngi leen di nuyu di leen siyaar ku maa ngi koy jox wàccuwaayam. ñu ngi lay delloo ziar bu wér alhamdulilah. ñu allah c'est c'est bien. macha allah excellent travail. macha allah mm-hmm. bon si Ahmed Cissé aussi tamit maanaam loo ko loo ko loo ko ñàkk nangul nangul da ngay seeral xam bëri xam-xamam daal macha allah. Mm-hmm. waaw da nga seeral bëri xam-xam na nag xam nga Sénégalais dañuy jaawale Sénégalais dañuy jaawale maanaam ku bari xam-xam ku bëri ku bëri xam ak maanaam kuy jëfee lim xam. Mm-hmm. waaw xëy na xëy na xëy na moom sëñ bi xëy na moom li mu li mu li mu bëgg moom moom lay def mais xëy na moom li mu xam moom mën na koo bañ a jafe mais je pense que ne moom xam-xam moo ñu war a intéressé moom ak muy jëf ak li muy jaay. Mm-hmm. waaw loolu nag gis nga loolu bu ñu dem tant que maîtrise tant que loolu mënuñu koo mënuñu koo nangul lekk ñun boog ñun duñu mën a jubóog moom wala boog dinañ dinañ dëkk di am moom ay conflit jërëjëf léegi ñëwal ci ñëwal ci question bi direct rek parce que temps bi du ko maye. waaw ah. effectivement question bi ma bëggoon bi ma bëggoon pro bi ma bëggoon posé sëñ mhm. benn dama moom dama ko bëggoon laaj d'abord ba xam moom comme ni mu comme ni mu fësee si réseaux sociaux yi nii ba xam da si amag ak ak ni muy waxee soxnaam yi ba xam da si am ak problème ay ay jabaram benn la ñaareel ba mooy. Mm-hmm. ba xam euh, moom moom moom moom comme ni ko comme ni ko sànq comme ni ko comme ni ko Teresa mi laaj. Mm-hmm. ne ko ba xam ba xam ba xam yow ba xam bio biologiste la ba xam li ngay def ni da nga ko jàng maanaam loo maîtrise la wala da nga ko wala wala wala yaa ngay defar sa coobare bopp. waaw loolu moom tontu na euh, mm-hmm. question question boobu na si. mais tontu bi mu si tontu dafa ne dafa na benn dëkk boo xam te xam moom seen ministre de la santé xam nga dëkk boobu noonu ministre de santé bi nekk foofu noonu ak bi nekk fii mën nañu bañ a bokk. n'est-ce pas loi yi aussi tamit mën nañu bañ a bokk. Mhm. waaw suis. dégg naa li nga wax baax dina dina si ñëw léegi da ko bëggoon laaj. waaw léegi nag est-ce que est damay laajte question ba mu leer est-ce que ñun Sénégal suñu ministre de la santé est man man je suis spécialisé en thérapie magnétique est-ce que ñun suñu ministre de la santé approuvé na li li li Cheikh Ahmed Ahmed Ahmed Seydi def nii. Cheikh Ahmed Seydi def nii dis-moi. jaajëf est maanaam en tant que sénégalais man je parle en tant que sénégalais. waaw mais bu fekkee dafa a wax ci beneen beneen dëkk ñun xamuñu beneen dëkk xamuñu maanaam réalité beneen dëkk yooyu noonu xamuñu par exemple muy defar ba xam bon yeneen ak yeneen ak ak yoo xam ne ñun en tant que musulman war ñu ko consommer je sais pas quoi cest à de nous de nous expliquer ay ci kon mi ngi noonu dina la si tontu léegi léegi. jaajëf laaj na question jaajëf laaj nga question nag bu am solo euh, Cheikh Ahmed dégg nga question bi mu la laaj ah defe naa dégg nga donc bi ma ci njëkk wax mooy malheureusement nag ñun suñ ministère de la santé buy xool garab du ko xool ci jullit ñi dagan na leen wala dagul leen ndax am na garab yu ñuy naan foofu dafa am yàppu mbaam dafa am sidditu mbaam oh. te jullit yaa ngi koy consommé di naan ba ne tar dem ci jumaa ji jullit yi hmm. loolu tam na ko ministre bi bàyyi xel ci laajteem bi hmm. maanaam ministre de la santé buy xool hmm. dafay basé ci règlement World Health Organization Mhm. mooy mbootaay bi jël wàllu wér gu yaram waaye du xool jullit ñi maanaam jullit ñi compté wuñ dara dara dara ci wàllu wér gu yaram ci wàllu wér gu yaram waaw lislaam nangu de ko moom it na ko xam benn ñaareel ba yàlla dogal na nag Sénégal lu muy rëy rëy rëy wax ji di bari bari amul benn garab bu ñuy jaay ci pharmacie bu ñu defaree ci laboratoire Sénégal importé rek mhm. importé rek te bari na garab yi ñuy indi ba ministre de la santé nangu ko muy rey ay liir ci hôpital yi Mm-hmm. bari na garab yi ñu nangu ministre de la santé nangu ko ñu koy jaay muy indi ay problème mu xol ci askanu Sénégal te ba tey sénégalais xeexuñu loolu waxuñ ci te ministre bi ñu dénk wàllu wér moo nangu garab yooyu dugg ci réew mi mm-hmm. donc loolu it moom dafa indi point bu am solo boo xam ne ministre de la santé war na xoolaat loolu ndax askan wi ñu ëpp solo xaalis bu ñu dugal beneen ba ca des mbirum santé dafa am ay règlement règlement yoo xam ne bu ko Cameroun nangoo dafay valable Sénégal ndax Afrique de l'Ouest ñoo bokk benn jaww ju ñuy dund mm-hmm. dafa am règlement yoo xam ne bu ko dëkk boobu àndee rek dafay yóbbaale réglement yu bëree bëree bëri donc question bi mooy mm-hmm. règlement bi dëkk boobu nangoo garab ya waaw ndax yóbbu na Sénégal mais pas ministre de la santé bu fi te li tax mën na bu dëbb mooy suma business su ma secret la du ma ne. dëkk sàngam dafa euh, jëlee Mali la. nit dem na Mali la Cheikh Ahmed waxoon du ma ko def. parce que commercial lay def Cameroun gi nga tudd sax tam ñoo am ñu dem a xooli ji Cameroun ba xam foofu la aussi. donc tey. Uh-huh. ministre boobu noonu. nangu sumay garab. moom ak Sénégal benn lien leen ci côté xool réglementation garab ci Afrique question bi mm-hmm. tontu naa ko foofu. waaye ban dëkk la ba tey dama koy réserver su ma. dama koy réserver ayca mi ngi. beneen bi ci des mooy beneen bi ci des mooy sénégalais bu ne am na droit jël garabu Cheikh Ahmed dem ci ministère de la santé ne lii mu ngi def coow ci réew mi xool leen ndax baax na. Abdou Ndiaye yow mën nga def loolu loolu sa droit la ci onde de constitution of Sénégal am nga droit. am nga droit it bind sa plainte na Cheikh Ahmed laa ko dóor na ñëw leeral lii la mais tontu ak laajte li ma mën tontu mooy Mhm. léegi Cheikh Ahmed laataa may dem ci beneen auditeur euh, garab yi nga comme temps bi xoj nañu garab yi nga xamante ni yaa ngi koy jaay euh, mu jëm ci wàllum euh, hémorroïde yeeg yooyu noonu di faj hémorroïde ak xeet yooyu mu mel na àndalaa buri wala lu ci mel na doywaar wala lu ci mel na riigu tey ji tey mi ngi fi nga xamante ni moom moo di États-Unis ñi nga xamante ni ñu ngi lay déglu bu ñu ko soxlaa bu ñu la woowee ci ban numéro dinañ ko mën a am waaw xam nga li ma bëgg wax foofu rek dama bëgg di joxe éducation balaa may continuer. waaw. Mhm. tey su Cheikh Ahmed Cissé demee ci espace bu gàtt. Mhm. ba garabam am base Maroc am ko Mauritanie am ko Sénégal am ko Gambie am ko Amérique tey. Mhm. lu nekk ci ginnaaw loolu laa bëgg nit ñi xool roy ko ngir xam ne buntab njëriñ ak yokkute tëjuwul pour kenn. waa États-Unis yi de moom ñu ngi koy commencé gërëm moom. pendant ce temps mhm. diggante bi may jéem a yóbbu suma garab. ci la ma nit ñi di saaga di xas di rëbbu comme dëmm. Mhm. pendant ce ci leen ma dugal ci kaso ñetti weer. Mhm. pendant temps boobu la ñu toj suma kat kat bu ma moomal suma bopp. pendant temps boobu yëpp ci leen ma dóoroon Kaolack ba may waaj a yépp yëpp terewul bëgg li ma bëgg gëm li ma gëm rek te ci. yonentu bu yàlla mu a yónni mu ngi la dimbalee ci nangoo sax ci mbir kii létt na ci def fulla day dem ba létt fay ko piréem mm-hmm. même naa feq bi jaxase la gën a jaxase nit ñi su demee bañ jàppee ko eh, expert ci naa feq yàlla da koy dimbaleel boppam mm-hmm. même kuy def yëfi doomaraam na ko def ba mu mat sëkk yàlla day teral doomaraam yi mm-hmm. ndax iblis a ngi ni dëkk bu ko neex dem te du soxla visa seytaan a ngi ni jëmm ju ko neex dugg te soxlawul listixaar mhm. kon ku ne la ngay def rek na dëggu ci yow. na dëggu ci yow ci tënk euh, balaa temps bi. donc tey. Mhm. loolu moo ma may tay man. ma commencé ci benn carton garab ba yegg si Amérique tey indi fi valeur dollar dollar dollar dollar dollar. Mhm. xooluma ñi ma doon xas xooluma ñu ma doon saaga xooluma ñu ma doon xeet. Mhm, donc tey dégg naa riigu bi moom euh, mooy buy yokk dégg naa moom dafa ñëw rek tagga témbewul dafa ñëw rek jeex. ba na ba beneen a ngi ñëwaat jeex na mhm. tey la wàccaat wàccaat na nii. ah na tey. Mhm. Ah, kon ñi may déglu. donc ngeen gaaw daw wëcc ko. Abdou Ndiaye concernant sumay jabar c'est ma vie privée man suma wane suma photo jabar mosuma leen a waxtaanee damay ñëw ruube ci internet def commercial waxtaan. mais du ma ñëw teg suma vie privée ci mbedd mi ndax ki may laaj suma jabar moom waxut ma yaayam lu ko papaam téye waxut ma moom nu mu téyee jabaram donc bokk ci fulla ak intelligence internet su may jabar su may jabar nii nii nii non non man ak ñoom man ak ñoom la su fekkee ne gënalu ma leen am neen liberté tas neen tas wuti beneen jëkkër man gënal leen moo tax ma téye leen te j'espère que forcé wu ma leen bu ma leen gënal doon ñu tas parce que jigéen yàlla la ko may liberté tas moom lii moo doon question donc ba tey Euh, damay wax rek ma ne. Mhm. képp ku ko jand mhm. amoo ci satisfaction ba nga ca bëgg. na ñëw delloo garab gi ma jox ko xaalis. Mhm. maanaam ku jënd suma garab satisfaire oo. waaw. kaay nga delloo ko ma delloo la sa cinquante dollars. pharmacie yi tubaab yi jaay ñuy nangu duñ ko def. hôpital yi gën a mag biñ na kaama opéré la boo wérul ma delloo la sa xaalis mais man noonu lay jaayee. ginnaaw assurance bi ginnaaw lépp kaay ma jaay la nga naan satisfaire ma delloo la sa xaalis noonu laa koy jaayee Sénégal lu coow la bari bari fu ne question dana fa jógee critique mais duñ la ne maa ngi nii jënd naa gisuma amul. numéro bi ci gàttal ci gàttal euh, numéro bi euh, naka nan la ñuy def jot la su ko defee ñu mën a am ci garab yi parce que temps bi xoj nañu. waaw xam nga suma garab bi moom day gaaw a jeex waaye ku gaaw woote ci numéro bi mu nga xam ne. Mm-hmm. mooy six four six nine four five zero three six eight di nga ci am 646 945 0368 ay ci kon mi ngi noonu di gaaw leen gaaw ngeen woote balaa muy jeex ndaxte euh, riigu bi moom ba mu ñëwee tag taxawul euh, te loola jeex na euh, ba amaat nañu leneen loo xamante ni nee na sax ñëw na tey doy waar gi itam bëri na ñoo xamante ni maa ngi leen di gis fii ci États-Unis ñoo xamante ni man maa tax ñu xam garab bi wax nañu ma man personnellement wax fa dëgg yàlla ne ma garab gi garab la goo xamante ni baax na trop trop trop trop foo ko nattu weesu na ko macha allah ah euh, di ma ci gërëm man mi nga xamante ni rek dama leen boole ki nga xamante moom moo di Cheikh euh, Cheikh Cheikh Ahmed euh, moom ak nu mu tuddati sax garab beneen garab bi andala buri bi itam noonu noonu la demee léegi su ko defee comme li ñu defee ci temps bëriwut Trésor Sadji defe naa da nga bëgg laaj benn question vite fait rek su ko defee mu tontu ci ñi ñi ñi ngi leen di jëfal di jégalu bu baax auditeurs yi nga xam ne mujjatu ñoo dugg ah ayca ñëwal gaaw mais dama ba créé ba créé tur ok léegi léegi dégg ko si amee mu ne lan moo tax nga choisir euh, riigu ak doy waar. Euh, dama xam nga riigu abréviation la. Mhm. riigu moom kooy lay guddal di réyal ma ne ré yël ma jël ré indi gu muy riigu. donc ñun foog ñu gëm suñu bopp xam mu olof yi parce que su ñëwee di ñu Mitsubishi Hyundai Mercedes Mercedes doomam bi jigéen la tuddee oto bi. nga ne riigu nga ne riigu lu muy guddal. régu réyal guddal lu muy réyal lu muy guddal kooy ma génnee fa kooy indi réyal guddal ne régu régu moom kooy rek lay traité traitéwul bajo traitéwul nopp traitéwul dara kooy lay guddal. su su su gàttee. su tuutee mu réyal ko su dëngee mu noddanti ko teg ko ci raay bi ba mu jub ndax koy dafa war a jub dafa war a dëgër dafa war a am maanaam ci la bokk donc àndalaa buri suma maam la woon boo xam ne téeméeri doom la am xam nga bëggoon na jigéen ma tuddee ko àndalaa buri yaay dama ko naan mu doy waar ma rëkk ci gënn gi junney kour ma tuddee ko doy waar am naa buy ñëw jéggi dayo la tudd am na benn soq la tudd parce que soq mbër am na mais da ngay soq ci gënn gi réll réll wala sumay xeetu inspiration moo raar <laughs> mais ma <laughs> loolu moom dinañ ci waxtaanaat euh, xam naa ni temps bi duñ ko may mais <laughs> eh, waay ma ne rii moom koy def xaritu yàlla vite fait rek une minute moo ñu dese euh, nga laaj question bu gaaw rek xaritu yàlla ñu ngi jégalu bu baax Cheikh Ahmed. Ah, ah, kan mooy xaritu yàlla. mais loo doon yow. ah yow am na fayda di. man xaritu yàlla la xaritu yàlla moo ma seet si. mais moom dafa mel ne xaritu yàlla nag de euh, léeg dafay yéeg si sama si sama live sama page yi lay yéeg. Euh, mais euh, nit na boo xamante ni day nekk ci kurus bi lu bëree bari day toog rek vraiment euh, nekk ci maa ngi lay sàkku ñaan bu baax a baax a baax ah léeg-léeg mu daal di tijji micro wax wax mais waxam gaawul Cheikh Ahmed ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi maa ngi tàggu ñëpp di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon. man li may tàggatoo ak askan wi. Mhm. mooy man ak ñoom ñëpp. yal nañu yàlla boole bëgg. amiin suñuy bàkkaar mu def ko tiyaab suñuy tiyaabu mu def ko yiw suñuy yiw mu def ko yool mu ñeel ñu. amiin waay. yàlla may xaalis ba mu bari. Mm-hmm. ndax lu am solo la. jigéen ñi na leen yokk caf ko góor ñi na leen yokk koy bu dëgër baax te mën a kat ndax dafa am solo ci dund. ay waay. yal na yàlla réel forme jigéen ñu ku ko ci bëgg. WPAT Patterson. Are you paying too much for your health insurance? Are your deductibles too high? Or are you completely uninsured?